mbokki jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jëkkal tomb bi ñuy fàttalante tey dana am ci yi ñenn ñi ñum xaw a dis tuuti waaye nag lu nit di waajal rek ak lu mu ko fonk fonk ba di ko jiitoo yaari weer ba yat joxoñu suñu boroom moo ca gën a yay li ñuy fàttalante tey mooy weer wi nga xam ne mooy dëgmal di gan gan nag boo ko déggee mooy ko fi jaar rek jàll muy weeru koor weeru koor képp koo xam ne ab xolam pas-pasu gëm yàlla bu dëgër ma nga ca mi ngi koy séentu yàkkamti ko lool ndax ya ca nekk ci biir benn ñun ñépp xam nañu ne suñuy xew yi ci ëpp suñ coobare lañu ko tànne di ca demal suñu bopp ak suñuy pexe di ko ànd ak ñañ koy àndal waaye ni ma ko junje lu mu war ci waaj lu ca war ci waajtaay dañu ko cay def jox ko ci waxtu lam yellool ba jox ko sax loo xam ne waxtu keneen ngir bëgg bu agsee ñu jekk ko te jële ca dara jële ca dara moo xam muy madda wala maanawi lu ñuy laal wala loo xam ne ab yoolub suñu borom lañ ciy séentu weeru koor nag moo ca gën a yay ndax benn weeru koor lii dundal aw yaram muy lekk ak naan fukki weer yi ci at mi ak benn wenn weer woowu ñuy wax ramadaan di weeru koor mooy woor weer wi nga xam ne moom ruux daf caa soxla boroom ñii mu àndal mu yeesalaat ko daasaat ko dàggiwaat ko kon weer la wow yett ba yent ba juróomi yëf làmboo na ko ci ku ko xam dëgg-dëgg ku ko xamutoon mu xamee ca ni bokkut ak weer wi nga xam ne moo koy jiitu bokkut ak wa wa cay topp ci weer yi suñu boroom tànnal boppam la sant ñu ci ab liggéey kon dañ fee war na ñukk luñ jàppoon lépp fas yéene buñ ci àggee mbërëm suñu borom kenn du ko daan waaye ñu jekku ko nañ ko war a jekkoo ba lam ca tege lam ca teg ne ku ko def dana ko am suñu borom dajale ñu ak moom yàlla nañu suñu borom dajale ak loola ba ca jiitu mooy day dana yeesal pas-pas ndax koor yàlla rek moo koy mën a santaane nit ñi tënku ca ndax loo xam ne bëccëg bi lépp nit ki du ci lekk du ci naan du ci def lenn lu ko diine mayoon sax daf ko koy tere kero su ko mënee muñ ba ngoon jot ba jant bi so yàlla rek ko mën a santaane nit ñi topp ko ndax nit mën naa wéet ak lu mu war a naan moom képp ak loola kenn gisu ko waaye mu ne yàlla mën na wéet ak lu mu war a jëfandikoo ci lekkit mu ne yàllaa tax mu bàyyi ko fi muy benn dana yeesal pas-pas xam ne yàlla fu nit nekk ma nga fa nekk ak moom te day fay bu ëllëgee te lu waay defoon it ak maanoom àgg na ci xaalis boo ko jox mu delloo la ba ci tam waaye day de mën naa yar jikko itam ndax li tënk nit ki bu wooree bu mu xuloo bu mu werante bu mu xeex su koor gi jàllee su ko bàyyiwul yaakaar naa léegi tey ñiy jàppaate ak ñiy àtte dutuñu am kuñ jàpp dutuñu am kuñ àtte ndax ñépp ay defaru waaye dana daas ak ruu ruu moom jege jegalu suñu boroom teg sa tànk ci ndigalu suñu boroom moo koy dundal bokkut ak biir bokkut ak gémmiñ waaye su weeru koor ñëwee it mën naa dund bu baax ndax weeru koor suñu agsee la ca nit ñay toggoo ci ay jaamu yàlla lu ca yàlla tax rek loola luy dundal ak ruu la yàlla nañu ko yàlla jàppandalal waaye day defar bakkan ndax bakkan lim gën a bañ mooy ku ko tere nangam waxuma laa loo xam ne da ko tàmmoon miin ko mu neex ci moom lool benn xëy ndékki teg taabal ba mu fees dell lu ci nekk nekk ca bu añ jotee ñu dellu ko ko taajalaat bu ci kanamee tuuti takkusaan jot ñu dellu ko taajal lañ koy taajal muy def li ñuy wax ku suur ñoq ñoqal ñoq ñoqal ñu ne ko nag diiru bu weer moom loolu na dakk loolu it ginnaaw bakkan lu ñu koy tere rek lay bañ te lu neex dong lay bëgg nit ki it su bàyyiwut nim mel ci biir weeru koor woowu ak ak waajtaay wa mu ko war a waajal ba ba mu cay àgg fekk tàmm na ko bu ëllëgee du la yow kenn waaye kenn du la yow ak moom ndax moom moom moom bakkanam am na kilifa goog dañ ko indil ay lonet mu sol ko mu ëpp ko ñu ne ko boo ko tegee fii ci kaw bakkan bi rek dana fi mën a toog mu dindi weree sànni ko ne ko loo xam ne da nga koy teg ci bakkan moom du ma ko jëfandikoo loolu mi ngi ci biir weeru ko waaye dab sa bànneexit koor mën na cee tàggat nit ba su ko weeru koor jàllee ak waajtaay wi muy waajal weeru koor su weesoo it bànneexit duutu ko mënal dara te bakkan ak bànneex ak àdduna moom seytaane di seen kilifa waykat nee na ku leen daaneel daaneel nga noon yu mag koor nag suñu liggéey ba koor gi agsi ba dugg ci biir koor gi ba am ay fan ñuy soog a wax nit ñi koor lum doon day fekk wat nit ba jaan jàll ñuy dóor ca watiis walay nekk waaye balaa koor gi agsi la ñuy xam ne koor gi bu weer wiy jeexee moo ci topp ab liggéey bu rëy la laaj tàggat gu rëy la laaj waaye waajtaay wu mag a mag la laaj ndax yàlla moo fa joxañ ginnaaw xew yi ñu tànnal suñu bopp waajtaay wi ku ne da say bokk dëgg-dëgg koor aaja woon na nag waxuma la yi ñuy def te ab préfet di ko jiite wala gouverneur wala ministre waaye daje boo xam ne kilifa gi jiite ñépp moo koy jiite ñu waxtaane koor gi ja jekkoon na jaadu woon na lu jekkoon na lu jaadu la waaye ginnaaw loolu mënta am jullit bu ci nekk na doon kilifa ak boppam doon préfet boppam doon gouverneur boppam waajal ko nam ko war a waajale ba bu ca duggee mu yomb ci moom neex ci moom ndax saa su nañu joxe ci misaal kilifa kooku ku doon jàng mu ne ko fa toll ci àll ba ji mu wax ko ba ne ko fiq moom amu ci lu ko ci ump mooy yi atte jaa yi ñuy attewu di jaamu yàlla suñ bi ne ko noo def ak julli mu ne ko julli moom dara ump ma ci fa muy tàmbalee ba fa muy yem lu koy yàq lu koy defar lépp xam naa ko ak lañ ci jéggaleeg lépp mu ne ko loolu de mën a julli la xanaa mu ne ko waaw mu ne ko mën a julli nag nangoo julli moo ko gën man ko nangu koo def kooku it koor day duggaale ci biir lool koor nag suñ ko waxee baat bi li muy tekk mooy téye sa bopp rek ndax alxuraan baat ba mu jëfandikoo ci ne sayyidatuna Maryam ku ñëw ne la bëgg laa rayee ko wax nee leen damaa woor tey maanaam tey duma wax ak kenn bu dee yi ñuy waxtaane nag moom mooy xëy bañ a lekk maanaam bu fajar xare ba nit ki xadd ba noppi mu bañ a lekkati bañ a naanati ba jant bi so mariix diggante boobu it lépp luy tax kooram dog mu fas yéene bu dee fu mu jëmoon la mu dëpp bu dee ñu koy wakk ci ginnaaw la mu bañ leen a gestu moom la sëñ bu mag bi di way ne koor ñaari charte rek la am ñaari farata yoo xam ne ku bëgg a woor war na ko xam ba ca jiitu mooy fas ko yéenee def fas ko da ngay dégg ñu naan dañuy dem ca barab sangam fase jëfa koor loolu aada la waaye du diine fas fasi koor koor kenn ku nekk mooy woor mooy woor moom mën naa dem fañ koy fasa ji te du tax mu woor yal na ñu Yàlla musal ca lool kon kenn ku ne moo koy fas ne bu xëyee fas na yéene woor weer wi lépp bu amee ndox ci diggante bi it buy tàmbaliwaat mu yeesalaat ko koor nag ni ko alxuraan indee daa mel na jéggalu ci kenn mayewu ca waaye mën na caa leble mayewu ca da caa mën a leble ndax daf ne yéen ñi gëm yàlla ñépp su boobaa nag ku ci génn moo ci génne boppam ñi nangoon yàlla mooy buur sañu digle sañu sañu tere lim digle bu ëllëgee mu fay ca ab yool li muy tere bu ëllëgee mu fayee ca mbugal yàlla nu ci yàlla musal ku nangu loolu ak yamuy àndal yépp munta génn ci yaa ayyuha alladina amanu mu ne gàll naa ak seenu loos li ko tàmbalee ren ji loola ma nga xewoon bisub altine ji mujj ci weeru baraxlu fekk mën naa am koor gi bisub talaata la tàmbale woon bisub alti alarba la tàmbale wala alxames loolu yonent bi jógee na Makka dem Madina ba ca déwén sa ren ba déwén fekk nattu na moom suñu boroom jullit yi ba ñu nangoo julli nangoo sax joxe ci seen alal mu gàll ci seen kaw nag léegi bëccëgub lëm bu weer wi teroo bu ko kenn lekkati bu ko kenn naanati ñu bëgg a jaaxle mu ne leen déedéet bu mu leen jaaxal am na ñu leen jiitu woon ñoo xam ne gàlloon naa ko ci seen looso ba te siggi woon nañ ak moom dem ak moom yéen nag li tax ma gàlle ko ci yéen na ma ko gàlle woon si ñi leen jiitu woon dama leen cee mbakkur feggul loo xam ne ñooña bàyyiwuñ ko ca woon xel yàggut nag ay bis yu ay bis la bis nag boo ko déggee ay bis moom boo ko déggee lu mu yàgg-yàgg am na fu muy tàmbale am fu muy yem képp koo xam ne yaa ngi ci biir dëkk bi tukki woo wéradi woo benn yaa ma tax di yaa yaa ma jëkk a tax a wax yow moom amoo ci aw lay su fekkee da ngay tukki it fépp foo xam ne booy tukki mën nga faa wàññi ak julli su koor gi ñëwee sooy tukki mën ngaa dog waaye nag bor la yàlla mayewu ko ku wéree di it goo xam ne bu wéree mën a woor moom it bor baa nga fa tege di ko xaar loolu it mënees na cee potoxluwaale ne képp koo xam ne koorug daaw amee woon na ca bor na xam ne léegi tey weer wi ñëwaat su ko fayagutoon na gaaw ndax su bàyyee ba weeru koor duggaat du du yem ci fay ko kepp am na yeneen daan yu ñu koy tegaat loolu it lu mat a bàyyi xel la des na ay fan waaye foofu danañ ci jàngat ñett yi njëkkoon a wax muy yeesal pas-pas defar jikko daas ak ruu ak defar bakkan ndax kuy fayanteeg bor koo xam ne gisoo ko déggoo ko yaakaar naa ne ki ngay dégg di ko gis sa bakkan war naa mën a nangu boo ko amee bor nga fay ko borub koor yàlla lañ ko ameel waaye kuy fayante koo xam ne gisoo ko déggoo ko loolu bakkan bu defar mënu koo weesu ruu guñ daas ba mu ñaw mënu koo weesu waaye pas-pas bu yeesal peq ndax ñàkk xamoonam ne ndeketi yoo ku ci dogoon daaw daa war a fay renit tiit ca loolu it bokk yi kum ne ci moom war naa sant yàlla te xam ne mi ngi ci aw yoon kon kooku mooy koor ci loolu mooy alquran yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ayaman macdudat faman kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxra ak faman shahida minkum alshahra falyasumhu ak fu mu ko mën a fekk ci kaw suuf waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi muy lim ci xadisu boobu bu siiw boobu bi mu toogeeg saxaaba yi ba mu yàgg benn waay ñëw ku sañ ñëw jéggi mbooloo mi ba ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu teg ay wóomam ci ka ci kaw yi mel ni moom yi mel noonu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fabi yoxoom teg ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi jaaxle kii ku mu war a doon bii sañ-sañ kat moo ko war a am waaye lam doon wax gannaaw ba leen yonent bi ne kii da leen doon jàngal jibril la tudd da ko ne luy imaan mu wax ko juróom benn ba juróom yaar yuy tax ñu ne kii am na imaan ba ca gën a jafe nag mooy lu yàlla dogal mu neex la gëm na yàlla ko am la yonent yépp yi nga ci xam ak yi nga ci xam ba lim ba àgg ki ko doon laaj ne ko wax nga dëgg de nit ñi ne waaw kii di laaj te bu buñ ko tontoo mu ne wax nga dëgg mel ni ku ko ci xamoon dara mbaaru kuy ixtibaar yonent bi la ku koy examiner la rek mu ne ko wax ma lan mooy islaam waaye ba yonent bi lim islaam ne lii ku ci tënku yaa ngi ci biir lislaam di jullit liimali na ca weeru ko teg ca julli la jiital dafa jiital ashadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fii ba ba ngay faatu saa buñ ne ay ca leen julli nga bàyyi na nga doon def dem julli ji loo wéree di wéree di danañ ko junj keroog ku ne ci dëkk bi demul fenn am na nu ñu jullee mooy julli gi ñu xam ñun ñëpp ku ne ci tukki it am na julleem tukki bi taxul julli wàcc ko waaye ku wéree ba na laaj yit am nag julleem li ma ne woon sëriñ bi la tënk koor ci ñaari baat yooyu mooy fi muy waxe ci benn téeréem niyatuna wa kafuna an muftiraat li wajhi baaqin mut'imin bi tayyibaat loolu mooy koor waaye bii may wax itam nga xam ne mooy julli ku wéree di am na benn téeréem boo xam ne ñaari bunt la ak ñaari fukki faslun ak juróom-benn waaye am na ci faslu boo xam ne daf ca ne fasli bii liñ ciy waxtaane mooy julli ku wéradi moo xam muy gàpparu moo xam muy tëdd moo xam muy toog ak nu mu ko mënee waaye li feeg ruugaa ngi dem ak a dikk julli mi ngi ci loosam waaye naka noonu it koor waaye nit dana àgg foo xam ne julli da koy wàcc waaye koor moom li feeg nit ki mën naa fay bor baa nga tege ne bor nag wax ne ne wërta am rakk dañ naan du ko am waaye wëru koo am la ñu war a wax ki la lebaloon daal soo ko fayagut xel wërta dajaat ak ngor naa ko lebalaat ma waaye bokk na ci bi muy limit azaka ak aji makka ci ku ko man ab xadis boo xam ne it ci yontu bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko jële Tal'atu ibnu Ubaydillah mu ne am na ku ma sañu ci yontu bi sallallahu alayhi wasallam bi koor wàccee moom mu ca doon door a jot daa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw ya rasulallah dama bëgg nga leeralal ma gan koor la maanaam toog ba mu yàgg rek nga ne tey damaa woor la wala ñetti fan weer wu nekk wala bis sàngam bu nekk nga woor ko ci ay bis bi yonent bi ne ko shahru ramadan mooy koor gi nga xam ne li fekk yaa ngi tuddóob jullit ñu ngi gàllu ci saw loos soo ko mënut lebal soo soo amee bor nga fay soo mënee fay nga fay mu ne ko aggan mu ne ko googu daal moom la yàlla gàll ci loosu jullit yépp xanaa nag nit ki toog ba mu neex ko mu ne damaa woor tey rek fas na ma yéene woor ku xëy xëy na koor bokkatut ci diine nag moo julli bokkatut ci diine ñooy am te julli bokkatut ci diine sëñ bu mag bi àtte na kooka ba noppi dafa bind ci téeram boobu ma jàng léegi tasawut sixaar ñu bari moom la ñuy jëkk jàng waaye dañuy dem ba fàtte ko ndax ginnaaw moom la ñuy tàmbalee dañ koy xeeb waaye ak fees dell bi agsee ci jul def ne waalam bi anna salawaati alxamsa bunt boobu sax moo ci gën a gudd maanaam julli ak la ca aju moo gën a gudd ci téere bi ay bunt waalam bi anna salawaati alxamsa faridatun qataan wuqiita labsa qataan bi dikri wa sunnati wal ijmaaci wa man yakun minha ala imtinaaci jahdan laha fa huwa kal murtad fi lxukmi yustataabu jiimal abdi benn nit ki xëy xëy ne koor moom lii ak laa nee na moog julli ñoo bokk atte képp ku xëy xëy ne julli bokkatu ci lislaam teg ne bokkatu ci moom ñëpp xam ne wax na ko sëñ bi àtt na ko waaye ku ne bokk na ci waaye nangam ak nangam it te amut lay wu leer wa man aqarra bil wujubi wamtana min fialiha wala lahu udrun yaqa fa innahu muaxarun xata yaji waqtu salaati li qabuli lxadraji xatruji summa ta yumaru biha wa tabqa ba bëy di àgg atte boobay ca la koor di dugg yàlla na nu yàlla dimbali ba ñu mën koo jooxe nañu ko war a jooxe ñu fàttali ne diine ak aada léeg-léeg aada dugg ci biir diine diine na càll waaye nag diine moom du mas a dugg ci biir aada ne càll lépp lu mu ci gis te xamu ko dana lii nañ ko dindi teg ne wala su may comptabiliser du ma ko boole wàlle ci li may limaale am na ñooñ duñu waaj mukk julli ji ajjuma duñu waaj mukk julli tisbaar wala tekkusaan wala seeni bokk waaye koor moom jaral na leen jóge dëkk ak dëkk woore ji fa koo xam ne fi nga dëkk doo fi waajal waxtu yu juróom booy woore ji nangami téeméeri kilomètre soo demee nooy def ak julli boo ko bëggee kii mun la déet suñ bi yow da ngaa bëgg a man nga te la dëkk te su boobaa it lu mu bañ koor da koy bañ su boobaa it lu mu bañ aj màkka da koy bañ waaye asaka it da koy bañ waaye baati seede yi it day taxaw ne ne ah lii firndeel li ngay wax kat mooy ñeent ñee taxaw fuñ taxaw kat man du ma mën a jàpp yàlla nañu ci yàlla musal kon fépp foo xam ne nit ma nga fa julli ma nga fa fekk nit mu mën a jàpp julli bu ko fa koor fekkee war na ko fa mën a defe ndax julli nit ñi dañ la seen ngay def ñiw ne kere day julli waaye koor nag ginnaaw moom diggante nit ki ak suñu borom tabaraka wa taala la dëgg-dëgg yàlla soriwut ku jege la alquran tudd na ko laqad xalaqna al insana wa laqad xalaqna al insana wa naalamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa naxnu aqrabu ilayhi min xablil warid naxnu aqrabu ilayhi min xablil warid ab naar gànnaar laaj na ko Sëriñ Tuubaa nu ko nit mën a dégge sëriñ bi leeral la ko ko ci lu yomb xam ne ko loo xam ne yaa ko gën a jege ña soog ca kawam ni ma la koy misaal la mooy soo bokkee nit ab néeg ngeen bokk ko luyee wala ngeen bokk ci dëkk seen kër baay di ca fanaan guddi ak bëccëg boo négee ba gaayee génn nga gas room bi ba mu xóot ba defum pax nga denc ca pax ma suulaat bu ñu ko karawoon nga karalewaat nit mën naa ñëw ba toog ci kawam nga nekk fu sori gën koo jege foofu ndax yaa xam ne man na fa téere yi ne wa huwa aqrabu min xablil warid loolu lañ leeralaat kon loo xam ne nit ki ngay jàkkaar loolu mën na ko bañ a xam te boo ko waxul duñ ko xam wax da koy yàq koor yi ñuy def ni ci weeru rajab wala shaabaan sax dangay gis ku bëgg lu baax lool waaye da koy far yàqaat ci biir wa rubbama ibadatin kathira qad afsadatha lahdatun xaqira ñuy xelli kafe ngoon bu ko wóoree daa wóor moom bala ñoo xelli daa war a jóg ca place ba dem feneen waaye day bàyyee bañ tàllal ko mu ne ah nga baal ma de ñu ne moom day weer wi fàtte woon naa ne nii la koy defe mu ne waaw ba ma ko tàmbalee léegi day fàtte naa kañ la booba ko nekku ndaw la yàlla na yàlla musal ci kaw loo xam ne boo ko waxul desu ko xam yàlla rek moo ko mat a seedeel yàlla na yàlla doon suñu seede te wolof sax da koy wax waxee te xamul ne loolu alxuraan la wa yàlla la yàlla xam doy na wa kafa billahi alima mooy la yàlla xam doy na lu wér la gannaaw la yàlla xam doy na nag jërul keneen di xam jërul ñu di ko wan ñeneen yàlla na nu ko yàlla fekkeloo te jekkuloo nu ko te nanguloo nu ko te may ñu wér guñ ko mën a defe te yàlla may nu duñ ko fekkee it ñu bañ caa yam waaye ñu weesu ko lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yaxfirullahu lana wa lakum wa